li coow Boy Niang Balla Gaye ñi naan mat na ko ñi naan matu ko mais quand même combat la. waaw xam nga sport moom ah, euh, mbër nga nekk mbër euh, ma nekk mbër Boy Niang nekk mbër pour man ñu ñëpp ay ay mbër lañu et xam nga gisuñ ñu war a boole gisuma bokk li war a tax ñu bañ a bëre sport la euh, bu yàlla dogalee ah, ku ñu boole rek bu waree taxee dina taxaw amul problème. nga wàcc buñ la fayoon cachet fi mu nii suba suba nga sëkk Boy non man fi ma nekk rek laa nekk man je suis un làmb amul yéeg amul wàcc boo demee ba ci cappaandaw ga da wàccaat kon loolu moo tax may la amul yéeg amul wàcc est-ce que wax nga yéeg nga ma waaw làmb la rek bu ñu waxtaanee suma encadrement waxtaan suma staff Aziz du suma kilifa lépp li nga xamante ne rek maa koy def ci moom lay njëkkee muñ ci waxee moom lu ma ne ma bëril damay bëri aw ma problème ba